première question bi muy ndax yomboon na liggéey c'est vrai que yombul woon parce que nekkoon nañ ci période boo comme on était en période de donc ce n'était pas très évident mais je pense que c'est quelque chose qu'on devait aussi à DJ Paul parce que comme ni ma wax l'idée est venue de lui ñu jógee concert mu euh, mu émettre idée def album bi donc on le lui devait moo taxoon euh, ñu nous a idée l'idée, mais ce n'était pas évident ce n'était pas facile donc l'idée bi ni ma ko euh, je travaillais beaucoup à la maison donc dañoo installé benn euh, home studio à la maison di liggéey foofu donc doon woo instrumentiste yi ñu ñëw foofu euh, doon woo également yeneen artistes yi nga xamante ne liggéey naa ak ñoom ñu ñëw foofu donc je pense que tout est pratiquement passé à la maison On ma doon dem studio aussi benn wala ñaari yoon la doon nekk euh, franchement le travail c'était c'était plus à la maison et avec le petit aussi c'était pas évident donc moo waraloon liggéey bi doon nekk kër ga maintenant je pense que DJ Paul su ma naree wax ci moom

il sera toujours dans nos cœurs et c'est une personne boo xam ne mënuñu ko remplacer il reste un euh, Il est irremplaçable, dëgg En nag loolu laa mën a parce que sinon après dina gën a compliqué c'est les boobu aussi Mais euh, xale boo xamante ne elle était très serviable bëggoon liggéey bépp coiffure boo leen doon gis une vidéo OMG moom moo elle était très créative boo bëggoon li muy def bu baax a baax te ñu ñàkk ko mu nekk deux pertes yu teg ci ci at bi yoo xamante ne métti nañu torop mais sant yàlla rek et di leen ñaanal